di nuyu bokk jullit yëpp ñu bokk lislaam bi di nuyu bokk taalibe murit yi nga xam ne ñoom la sañ a digal sañ leen a tere ni ko kilifa bu jëkkee daa waxee rawatina Cheikh Saliou Mbacké di woote ci woote kàddu yu gàtt ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ko ndigal daaira Hizbut Tarqiyyah lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation ci njàng mi nga xam ne sëriñ bi sant na santaane na ko muy bis bi jëkk ci at mi incha allah bu àndee dogalu yàlla wax ne ab yéeg-yéeg la diggam ak borom ab yéeg-yéeg la diggam ak sëriñ Tuubaa loolu nag kon ab taalibe moom lay wartee fa mooy bu ndigalu sëriñ bi duggee rek mu bañ mu dëgmal ko rek ngir xam ne loolu mooy li koy jëriñ wa ma huwa shalabul ixtiyaari li xusnihi wannihi bila inkaari wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin alayhi ma qadrahu kon loolu mooy lii rek nga xam ne sant na fa ñëpp mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu xaside ngir ngeen xam ne ci bi Tabaski gi des ñetti fan altine ji nga xam ne ci ko sëriñ bi jàpp ñu jàng ci alxuraan ci jumaa ji ak ci jàkk yëpp nu mu ko santaane woon ñu def ko ci mboolem foo xam ne ak jullit fa rawatina foo xam ne taalibu Sëriñ Tuubaa ga ngir di euh, bis bii wax ne ak ak la ak teewlu suñ digg Sëriñ bi Sëriñ Tuubaa kon nag loolu la sëriñ bi daa wax jëw di ñëw Fati da daa def. bu noppee bu ko nee fas leen ci fas leen ci du ngeen bëgg ñu ne ko mbàkke nañ bàyyi nga fasal ñu ndax ñun bu ñu fasee dana am lu ñu fàtt te yow sax fas day gën a mat kon ñun li ñu ci war rek mooy jëf ndigal li te bàyyi mu fasal boppam te bu fasee rek ñëpp dañ tàbbi ci biir kon noonu moo ko santaanee rek fas yéene ñëpp ni mu ko diglee xam naa ñoom danañ ko santaanee rek fas yéene ñëpp ni mu ko diglee xam naa ñoom danañ ko gën a leeralaat ci penc yi nga xam ne fépp foo xam ne penc nga fa ñu yaatal ko waaye rawatina ci penc jumaa ji ak li ko wër loolu noonu la ko sëriñ bi santaane te wax na ma it ne gëm na ne bu ñu ko defee itam dana indi jàmm moo ko wax ci làmmiñam dana indi jàmm ci àdduna si dana indi jàmm ci réew mi tawat jiit it suñ boom danañu ko saafaral màggalu Tuubaa gin ñu dëgmal yàlla mën nañu caa yóbbu ci jàmm ñu génn ci ak jàmm te lañ cee séentu ak lañ cee ragal bañ lañ cee séentu ñu am ko ci te lañ cee ragal ñu bañ ko ci am loolu moo ko wax ci làmmiñam kon nag lu weesu rek fas yéene ci eh, soñ ñëpp rek ñoo xam ne ndigalu sëriñ bi la te eh, sëriñ moom ndigalam ci lañu jëriñoo kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak xam ngeen kuréel xasida yi kenn mënu ko tudd te tuddoo Serigne Hamza Dum Serigne Souhaïbou ndax yitti jëm ci ak taxawaayam bi ñu di ko ñaanal ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne moom la soobu di ko liggéeyal yàlla ko ci gëtt gën a gàttanu gën ko ci defal defal na ci ndam ba yàlla na yàgg yàgg ko taxaw yàgg ko ànd ñoom yàgg ko ànd ak mboolem kuréel xasida yëpp. yéen ñi mu ko ci seen loxo itam ngeen xam ne Serigne Touba moom saa su la sante dara rek ndam laa nga ci wet ga ndax bu la ko santee rek moom ndam la ñuy ànd ndax waxoon na ko ci làmmiñam ne xam xam ngeen nu may xame li ma leen digal bi xam def ngeen ko déet ñu ne ko déet mbàkkee mu ne waxtu ma santee nit lëf dee am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigale mu dëkk mu mu ne bu jëfewu ndigale da dellu si waat dama xamal ne dem na waaye amu fu ma ne kon nañ xam ne luñ ci jëf rek eh, pay ga ci loxo siñ bi la ne te dana àgg pay ga dana àgg ci tuyaaba ji dana àgg ci jëmmi ko ko jëf kon na ngir bañ a guddal ndax comme ab woote la ñu ñaan ñu àgg ci ak jàmm te day day ceeg tawféex te def ko ni ko sëriñ bi bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu